mbokki jullit yu tedd yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa ñu ngi nuyoo booleeg di ziyaar di tàmbale it nuyoo bi fi ko sunu imaam bu tedd bu baax bi xaaji abdullahi tàmbale te mooy ci hàddi yi sunu boroom bi mu nu may sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si almaktum mooy wax ni radiyallahu anhu yàlla dana koy bégloo muy gis ni joxe na hàddiyaam ñu nangul ko ko fa tabaarakallaahu imaam Cerno bokk e imaam xaaja abdallah gis nga li nga tàmbale ci moom wax ko yëpp dañ ko war a bind man buñ ko bindul dinaa ko laaj gars yi ko enregistré ma bind ko du ko bëgg nag moom waaye dañ ko war a bind dañ ko war a bind fa fii dafa am ay jaar-jaar dafa am ay jaar-jaar te it li ko jë tukkeeloo fa mu nekkoon ñëw sanc fii loolu mbir la ci biir mbir waaw mbir la ci biir mbir eh, Thierno jazakumullahu na xayran xew-xew bu ma sa am ci diine xew-xew bu ma sa am ci diine jox nga xew-xew boobu gëddëm woote nga fa tabarakallahu jël sa alal def ci léegi laa koy tooñ am ku ko tàggu di dem ndeysaan mu dugal loxo bi ci poos bi ma ne ko yow daal defe nga ne yow rek yaa yaa war di joxe fa tabarakallahu sunul xaalixiin mm-hmm. eh, yal na la yàlla nangul te nangul ñu ñu nit ci biir nangu gi mu lay nangul et fa tabaarakallaahu e, sawaay nag tooñ na ma hmm? pap hmm. tooñ nga ma danga nga waroon a waxtaan dama la suivre bi Thierno pare ci Asfiya te nga jël fa lillaahi alhamdu te li ngay wax it fa muy bawoo ci yow lu fa bawoo wér na waaw doo tricher ci wax fa tabaarakallaa ahsanul xaaliqiin doo ca diit diitalit danga koy wax na nga ko yëgee jërëjëf Pape Muxtaar baarakallaahu fiik di sagoo sunu aima yu tedd yu baax yi imaam la imaam Sàmba ak abadila yi fa tabaarakallah sunul xaaliqin ak sunu soppi yu cosaanu yi léegi la am sama doom baay bu ma nuyu fii ni ma bés bii ba ñu koy sos ci kër Cerno bi wër fii ay at dox na fi ay ati at dox na fi fa ba tey bàyyiwul e di nuyoo noonu it sunu soppe bi di xaaji Tafsir Mbay di nuyoo ko ziyaar bokk yu tedd yi fi teew yépp nga xam ne koo ci xool xar kanamam la ma daan wax rek laay wax la nga ciy yëg rek mooy simeehum fi wujuhi min athir sujud fa lillahi alhamdu wa shukru ana sunu ustaas bi doon wax léegi moom it tabaarakallaahu kenn du moom mm-hmm. du dëgg imaam ku baax la xataay yu bés rek a tax waaye amoon na fi kàddu ku dégg ni mu ubbee xam ne am na fi kàddu mm-hmm. Mm-hmm. di kàddu yi jàngale kàddu yi ñuy yëkkati nag ñun ah du bari kàddu yi cant rek lay doon ndax Badr boo ko seetloo ni mu tombee ci weeru koor ak di xalaat ya ko jiitu ya ko jiitu ci ay xeeti mettital ay xeeti tooñ ay xeeti lor yu ñu daan teg yonent bi ca mag aleyhi salaatu wasalaam ak ñi ànd ak moom ak ñi ànd ak moom di jàpp ko mel ni Ammar ak Yaasir su may Sumayya ba yonent bi demee ba romb leen ñu yeew leen ca naaj wa jël ay xeer teg ko ci seen dënn ñu di ko woo ni ko ndax doo ñu ñaanal yàlla mu dimbali ñu ci noon yi ba ñu tàggug bii fitna lu mu ca teg alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi mm-hmm. la ca teg mu leen yéen waa kër yaasir mm-hmm. فإن موعدكم فإن موعدكم الجنة أمو نيو سان سان مان أو ما سان سان خيخ في مكة أو ما سان سان فايو يالو جوخو مو تي ديغل جوخو لين تي ديغل لور يي متنا لور يي متنا جيغينا دايو waye nu ñuy def ak li ñu yàlla wax ku fu ay diyëkum mhm. bank leen seeni loxo bu leen fi fayu bu leen fi xeex mhm. supporte leen lor yi aw ma ci pexe lu dul rek yàlla jox na leen rendez-vous aljanna te di ca tàbbi ji dem ci ba ñu ko séqaloon defe ne ay ragal lañu amal affaire sayiduna umar ibnul xataab ak sayiduna xamsatu ibnu abdul muttalib organise fa benn yu ci biir màkk pour révolter wu allahu akbar di wër kaaba gi allahu akbar di kaaba gi la doon seen métit mooy li ñu sañu la fayu sañu ñoo xeex te mu wóor leen ni ñu ñu ko séqal ñoo leen mën mën na leen yeewu ba ñu ñu ŋodd nañ leen ko badal fa mbir ma sotte nañ leen ne yeew ba ñu ne ŋodd ñu jàppaleen ñu ñàkk fayda jàppaleen ñu ragal jappelen ni luñ len def rek baxna alayhi salatu salaatu lan la mujje xamni yëf yi metti na pexe amul mujjel ñi yabal len habasha ni len génne len màkk dem habasha mom mu ànd ak zaid ibn harisa dem taif pour mën am jàmm génn màkk pour mën a am jàmm ñamu yabal xabasha ba ñu demee buur ba teeru na leen teral na leen fat na leen aar na leen muy Najashi ci Éthiopie ñi Ceerno Hamid Yero Ousmane di bu màkk am nañu chance jaar Éthiopie man mii jaar naa fa mm-hmm. di dëkku si Sayyidina Bilal ibnu Rabah mm-hmm. gaa ñi làqu ji foofa moom mu ànd ak Zeyd ibnu Xaarisa ni mu nga dem Taayif ginnaaw ñi ko jur ci màkk di ay baayam gàntal nañu teg ci xatal nañ ko fexe ba nañu fexeel ko ko ba ñu yégee ni ma nga jëm Taayif ñu gaaw yónnee ndaw lu ko jiitu Taayif ni leen mi ngi ñëw de waaye li ko yëkkati mooy li tax mënewul ak ñun ñu di ay baayam jur ko mooy sunu diinay maam ya la bëgg ñàkkal fayda indi fi diina ju bees ci la ñuy woo wuyuwuñ ko ci ba jot na am sax ñu mu ci jël ba dugal na leen ci weddi seen diinay maam fekk ko ci diinam ji bees ji am na nag ñu mu rawale ba yóbbu leen taayif waaye li mu ñu li mu ñu dëkkee woo wuyu ko ci moom lay wutsi ci yéen ñooñu di ay nijaayam dëkk ba yëpp def mobilisation ba ñu jotee ndaw la nit ñoo koy teeru ji ba muy dugg taayif la ko ay nijaayam di waa dëkk ba yëpp ni ko mayuñu la nga toog fii mayuñu la sax nga wax benn baat wàññeekul toppaat say tànk sa baay yooyu nga bàyyi nag ca mag amuñu fayda ndax bu ñu amoon fayda rey nañ la bu yàgg boo bëggee sa bakket nag dëkk bi mbooyoo na te ci mbooyoo nga dikke doo fi naan ndox doo fi toog te mayuñu la nga jël fi kàddu toppaatal sunu joxoñ dellu fa nga ba wowoon naka la waññeeku wan a ginnaaw rek xeer ya commencé taw ci kawam fu ne xeer jóge fa nanga ñu ngi ko topp nga préparé woon seeni xeer yu bari topp koo kiy xeer xeer yi di taw ci kawam sallallahu alayhi wa sallam xeer yi dakkul xeer yi dakkul ba ba deretam sang ko Zeyd nu xaalis amul pexe di jéem a buuf ci kawam may dara ñu boole kook moom jam rek ku ci nekk yaa ngay naaj mujj gi amatul kàttan sox gu mu séqee jéego muy raam di génn dëkk bi sallallahu alayhi wa sallam muy raam ñu topp kook xeer ya ba mu wóor leen ni génn na dëkk bi garab ga mu jëkka yam mu tëdd fa Zeyd ibnu Xaarisa di ko fompal deret ji di jooy di jooy rek ca la xol ba jeexe nag moom yonent bi nag mu wax ak boromam subhanahu wa ta'ala waxam bu daw yaram ba bu ilamante kilu ni yàlla kan nga ma nar a bàyyeel ak noo nar a ñoo ma nar a bàyyeel diggante bii ma bëgg a bàyyi di noon yu seeni pexe dul jeex te dara baaxu ci di wujj yu seen xol dul sedd mukk te yéenuñu ma jàmm muy wa makk ak wa taif ndax ci bi digënté ko ma bëgg bañ ba yag mu xamel ni ko dabatal ni ko way nak bo bo merul rek bo ma merawul rek li du dara mën na ko supporter jibril alayhi salam ni cëpp ci kanamam ni ko sa wax na kat malaika yépp dañu yëngondo bi nga bi nga ak sa borom lolu sa borom nak neena yonent bu mu jox na la ñaan goo xam ne ñaanuk sànni tàccu la da ngay ñaan léegi mu nangu léegi dañu naan jooni jooni ku ma mas fekk ci dugg jaaxle ba ma la ko joxee ñaan nga lay xew-xew Moussa ca mer rouge laa ko fekk noox ca mbënd tuufaan Ibrahima ca safara yow nag sa bos a ngi nii maa ngi taxaw di xaar doj wi ci penkook wa ca sowu ñu ngay lox pour nga joxe ndigal bu ci nekk fëxe fa mu samp dajeedoo ci taayif taayif far ci kaw suuf ñi fi nekk ñépp dee léegi loolu rek lañuy xaar mu jooy moom yi bi aleyhi salaatu wasalaam jibril bàyyi ko mu jooy ba yeggal ni ko lan la mu ne ko ñaan gi nga ne ñaanu lan la mu ne ko ñaan léegi mu nangu léegi du taxaw sax mu ni ko kon ñaan gi di ko delloo ci sama boroom mu dencal ma ko te xam na ni moom yàlla xam naa ni ñii ay jaamam lañu dañ ma xamul rekk moo tax ñu jaar ak man fii waaye na bàyyi ma muñ lii moom bu ma merewul rek lii du dara mën naa ci dund mën naa cee dee te ñaan gi nag noonu mu amee solo nga xam ni dangay ñaan léegi mu nangu léegi nee ko na ma ko denc rek bu ëllëgee ma jàll ci sama xeet ndax dañoo mën a tooñ te bari bàkkaar kii ñun mënuñu koo fay hmm? mënuñu koo fay وسليا يا الهي وجزيا وجزيا ابدا عنا عنا محمد امام حاجي مالك معتقد وجزيا ابدا وجزيا ابدا عنا محمدا المختار في القرية يعني نك يلا فعل رك لنكم انا لولا مونيو ديفال بيسو بدر لك تختيس تخكو متي امام واخنكو لغي خيخ يبو لن وون bàyyi alaaji ibrahima saaxu yàlla na ko yàlla dool lii leer moo daan wax ni deret dafa bari doole umayya <laughs> nee na fu ne jaar nafaak hashim ca màkk hmm? waaw abu sufiyaan nee na fu ne jaar nafaak fa bi laata muy tuub man yàlla ma yàlla baal man abu sufiyaan tuubam daal dëgg dëgg dëgg tuub na nag mhm. waaye man daal sonal na yonent bi lool. booba la heure bi door a jot na ko lool. booba la ko xadara bi door a soxla. ndeysaan. Hmm? buñ ko soxlaa la ñëw. sabab badar moom mucc ca moom Abu Sufyaan mucc ca waaw. njëgg ma mu doon rawale ba tax ko romb Madina wuti Shaam xaw ma fan. te yonent bi yëg ni jaar nañ fi te ba ñuy génn mag. ak ñi mu àndal di sanc si Madina waa màkk mayuñu leen ñu jël seen alal yi leen lew sax génne ko dara dañ ko confisqué am na ñoo xam ne bi ñuy génn Màkka su luñ dàll confisqué seen alal yépp ci leen benn ngeen ñàkk seen alal toppi Muhammad wala ngeen toog fi jël seen alal waaye comme yàlla na leen bu leen fi xeex lu cay pexe te ñoom li ñu gëm dëggale ci ñoom bàyyi fa alal ja dem toppi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu far yàlla dogal ba loola amee mu war a mu yëg ko nag war leen a dabi pour am na sañ-sañ ak droit ci nangu si la ñu moomoon jël alal jël faf nag ba ñu ëgsee ca barab ba fële leen nag mbir ma fekk yàlla subhanahu wa mi nga xam ni kenn du ko laaj lu tax ah ihda taaifatayni léegi daal tànn leen benn ci ñaar yii daal waaw imaam wax na ko léegi duma ci sori e, ñoom yéefare dañ ko préparé mat nañu junni war nañuy fas am nañuy ngàndaay ñii ñetti téeméer ak fukk ak ñett lañu mhm. ñu ci bari dañoo tànku waruñ sax fas abuñu sax gànnaay te wara xex waye dal ci gàttal falilahi alhamdu wa shukr wasal xunaynan wasal badran wasal uhudan fu mu dem rek sunu borom subhanahu wa taala defal ko fandam victoire bobu nak mu amone te duñ ko fàtte ba ba aduna tukki sa bu ñewé rek imam haji Cerno yaro Ousmane woonu fii nu nañu fàttaliku mbég mooma ak ndam loola ñun tamit ñu toog jël sunuy sant yàlla subhanahu wa taala ful ko dolli ko alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim